xaabaabal nañ tuuti waaye ñu yóbbaale CEDEAO bi Assane. Hmm. mbir ma nag ku toppoon état bi àtte bi du jeexagum ndax démb rek doon nañu indiwaat ay banga banga ka def yëf ak mbiru connexion yu ni mel. Hmm. juge bi nag am na fullaam ak faydaam ni buñ ko puusaatee mën nañ ñëwaat connexion bi bañ kon dañuy def li ñuy def waaye def nañ pexe mu nekk ngir euh, daal mbir mi bañoon a am. juge bi def na li muy def incha allahu rabbi nee nañu daal euh, daañu joxe kii bi le 27 bu soobee yàlla le 17. Hmm. incha allah waaw xanaa di di sunu siis yi nekk fii di masawu sunu saas yi di masawu sunu àttekat yi nekk ci sunum réew ndax réew mu toll na Sénégal nit ñi jàng ba am seeni diplôme xam lan mooy yoon xam lépp ñu leen di àtteloo am mbir mënuñu koo àtte wala ñu jàpp ni am ñu jàpp ni parparloo doo ci am bañ ba leen fi dem ci beneen réew wala dem si loo xam ne ak kuréel la gu sori ñu leen di lijjanti wax dëgg yàlla jar nañoo massawu ndax li tax ma leen bu fekkoon jëruñ ma leen di saw dossier bu mu mën a doon am si réewum Sénégal gii war nañ ko mën a àtte te teg ko si yoon seenum njàng. Hmm. mais nag wax dëgg yàlla ànduma si daal man dem gi mu dem foofa sax bañ ko fay àttee. bu sa ndam amee nekkul ni dossier fa dem ñi dañoo tey jii mi ngi mel ne. kuréelu kalaame ku dafa ndànk rek mi ngi mel ne. tey jii hmm. man ma amoon problème police Grand Yoff jël ma di ma lijjanti mënuñu maa leen ñu jàllale ma buñ ma jàllalee rek xañ nañ ne fa leen gën a kawee lañ dem mais war nañ ko mën a régler seenum njàng war nañu. xam cour nangam cour nangam. mais yow ñii yiñ fi ñu aw fu ñu ko mën a réglé dafa bari. avocat Ousmane Sonko yi ñoo dem cour suprême. waaw ñoo ñoo dem CEDEAO. Mhm. kalaame fa état moo tax ma leen di ma saa wax na la ni la. même bu ñu joxoon Ousmane Sonko dëgg. est-ce que mhm. état dina ko respecté. waaw fee dem rek jéebaane kalaame. looloo tax nag may massawu ñii ñooy ma saw ñi sunu àttekat yi nekk sunu réew waroo leen àtte ndax keroog sa saaba fay def na fi àtte la ba tey maa ngi koy ma saw moom ma woon lu tax waaw ana la ma àtte ñu ngi bi lan <laughs> àtte ba pare mu nekk cours li muy jariñ loolu dañ ko war a ma saw fi war a jaar bari war naa jaar ministre de maa ngi leen di masaw di masaw président Macky Sall si réew mi waaw maa ngi koy masaw bu baax a baax te di ko di ko di ko masaw daal di ko di ko yër am si moom yërmaane ndax bu sañoon réew mi du nekk si gii guuta def na kéemtulaay kartan mais xaj na ndogalu suñu borom moo tax réew mi tàbbi si guute gi te xam naa ni du si dana si yàgg. d'accord mm. macha allah maa ngi koy nuyu moom madame Mesere nee na ma ah brillant papa ah tey mu dee. bi de sa brillant la. <laughs> hélas ah, man daal Amina nee na nee na ma papa nee ma papa brillant laa dégg tey mu dee. sa brillant la de. man du ma sama brillant de. Ah, man damaa dama am nga sa jigéen sa brillant la brillant bu ma fi laa sa brillant la. man damaa gis ma am maa ma tax ko. ma ne daal bilan bi sa bilan la rosa bi sa rosa la. Ah, rosa rosa <laughs> rosa boobu amagu <laughs> ah. bi de Assane dafa dàgg day waaj a taqi rosa. <laughs> waaw alaaji yow très bien xam nga lu mu bëgg a joxe. waaw maanaam ma ne déedéet man yoruma bi yoruma rosa bilan laa yor léegi bu ma seetal boppam yoruma bilan yoruma rosa. alaaji waaw euh, démb sax mu mel ci takk soo maa ngi lay gis nga am ci développement ndax bi xabaar avancé am nga ci beneen gis-gis lu mooy la nga waxoon démb ginnaaw bi CEDEAO pare di joxe verdict bi le 17. waa xam nga euh, bon xam nga Assane nag bon son bu euh, mooy meilleur chroniqueur. Assane mi waaw. parce que Prince Saay day génn foo xam ni. te da ngay xam ni vraiment li mu wax nii hmm. xam-xam lalu na ci. parce que bu ñu demee tamit. ba teg yenn kii dajale ko ca CEDEAO mm-hmm. dañu njortu ni ci biir dëkk yi mm-hmm. mën nañoo doxalee neneen noo xam ni te mën na caa bañ a am mm-hmm. maanaam moo tax li la wax noonu ne échec tey daal dee feeñ ci bu ngeen yeggee fële loolu aussi tamit day kii parce que le fait que ngeen dem ba génn dëkk bi wutali foofu rek moo lay wan ne la am na koo xam ne amut tut mbégte wala kontaante ci biir réewam. Hmm. façon àtte biñ koy àtte. mais avocat Ousmane Sonko ñoo ko yóbbu fële. waaw ma ne waaw waaw c'est parce que dañu amut satisfaction. mi ngi mel xawaan bi mu jëlee gaa yóbbu leen CPI. voilà dafa amut satisfaction. xam nga tey jii CPI li muy réglé yëpp. am na yoo xam ne bu fekkoonte ni bi justice su kii bi mu ngi koy réglé. Hmm. soxla wut ñu di fa dem. Hmm. donc day am yoo xamante ni bi parensaay manquement yooyu moom la ñuy mottalee fële. am parensaay mottali gi foofu lay ne. loolu bokk na ci li tax sànq bi nga expliqué ne. Hmm. ñii dafa mel ni bëgguñu ko àtte mbir mi. Hmm. waaw waaw maanaam bëgg nañ. nañu dàq ko ay yoon yoon bëgg nañ ñu dàq ko ay yoon yoon. juge bañ bëgguñu ñu àtte ko bëgg nañ di gagner du temps et cetera lépp rek ngir li ñu bëgg am ko parce que dafa am loo xam ne boo ko tegee ci xel juge bi munta a àtte lu weesu. jox ñii parce que ñii amuñu sax argument boo leen déggee ñuy wax. Hmm. nga xam ni amuñu argument quoi. boo déggee ñëlee ñuy wax nga xam ne dañoo am lu ñu teg ci taabal ci mhm. loo xamante ni bii lii lu leer la ba tax na doo sawar ngir ñu àtte mu mhm. leer mhm. moo tax noo ko mën a laxasaayoo ci connection courant bu coupé ak yooyu yëpp nga ciy laxasaayu pour bëgg rek euh, mbir mi euh, du demee noonu xam nga ni ni avocat yele def kii ko bu dee état bi mbir mi yitteel na ko dëgg war na ko mën a def quand même. ba nga xamante ni bi benn problème du am. mais yooyu yëpp bang bang jooju ñoo koy créer pour rek euh, daal day kii léegi nag li nga xamante ni mooy li am xam nga man bu ma la waxee ne la séentuwuma dara ci euh, la fay jóge daanaka parce que même ñu jox fa Ousmane Sonko dëgg ñii ginnaaw barki Demba Ndiaye lañ jox Ousmane Sonko fii dëgg dëgg goo xamante ni ba léegi dëgg ga kenn xamut fu dëgg ga dëggoo. Mm. te ñëpp jàppoon nañ ñi tey bu ñu jógee ci lii Ousmane Sonko joxoon nañ ko ay parrainage am ba parrainé na bu yàgg comprendre mm. def na li war a def. loolu yëpp tey tagga témbe mhm. lu ko waral te pourtant ñoom ñooñu gëmloo woon nañu justice nañ leen gëm luwaay bu kenn néewal doole yoon tey ñooñu ko doon wax ñoom ñoo yor ay yat di dóor yoon yoon àtte ñu ne ko da bokk ak diw da ngaa def nii da def nii da ngaa def nii. Mhm. nga. dem di def ji recours ñu ne la diggante bi mën ngaa bàyyi waa ji mu kii bu fekkente ni bii tey sa recours boobu daggan na ne tey ji fexe nañ ba recours boobu sax même ñu ci amoon dëgg dëgg ko du doon dëgg. parce que dañ naan la nangu woon dëgg gi loolu yëpp yaa ngi nasaxal yoon mhm. kon parce que li nit ñi di bët bi nit ñi di xoolee yoon rek tey jii même boo fa amoon dëgg tey bët bi nit ñi di xoole yoon dañ naan la sëñ bi lu tax nangu woon bee bëgg nangu bii mhm. kon da waroon a nangu bi d'accord yooyu nag bokk na ci li tax mbir yi di dem ay CEDEAO et cetera nit ñi di la jeebaane ci bitti c'est parce que yow ci sa jëmmi bopp li nga war def ci biir réew mi day am ay manquement looloo tax nit ñi di la yóbbu. donc loolu la.